regroupant des personnes indépendantes mm -hmm. et qui ont investi la euh, le candidat intéresse jomaay benn la ci mënut mooy ci ci ci ci ñett yi nañ ko wax indépendant indépendant kese la ci mënul parce que conséquence u dissolution parti bi tax kese la ci mënul mais jomaay parti moo ko investir parti moo ko investir coalition de parti sax pour ainsi pour être beaucoup plus précis. Hmm. coalition de parti ñoo investir Diomaye donc euh, condition boobu noonu da dem. Hmm. la liste des électeurs ayant parrainé le candidat loolu moom tey lañ exécuté le front tey lañ exécuté le front validé na ko euh, beneen kii bi hmm. déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions de l'article 4 oui. et 28 de la constitution xam nga ñaar yooyu tadu waaw exclusivement de nationalité sénégalaise ak beneen bi euh, mooy savoir <laughs> lire et parler la langue française ñaari la langue officielle donc boobu mooy article premier euh, nationalité bi mooy article 4 constitution mm. Mm. français bi mooy article 28 ñaar yëpp joomaay wàccoon ak moom inspecteur des impôts et domaines te du tey yëpp nañ ko càmbar conseil constitutionnel ñu ngi koy càmbar ni ñu ngi koy càmbar non parce que vendredi déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la, la législation fiscale. Oui. inspecteur des impôts et domaines. Mm-hmm. fiscaliste chevronné Bassirou Diomaye Faye. déclaration euh, une quittance confirmée par une attestation signée par la CDC. Oui. attestant du dépôt de caution. oui 30 millions. waa léegi <laughs> fu ko daanaan di jaar Bassirou waxal waxal xaw ma ko rek ñu dem waxal xaw ma ko rek. ah fii la candidature de Diomaye fu ko di jaar laalo fu ko nit mën a jaar. cest à amul fenn. nulle part ci buñ ko càmbaree. nulle part encore des roublards viendront me dire. Hmm. dissolution de parti. et encore je leur répondrai que la dissolution de parti n'a aucun impact sur une candidature ñu dem ci constitution. parce que code électoral lañ nekkoon. kat moo mën a doon candidat. oui être âgé au mois de trente cinq ans. au plus de soixante quinze ans. Mm. jouir de ses droits civils et politiques. nga dem ci constitution mu ne la gongo nga dem ci cote électoral mu ne la gongo nga dem ci législation Sénégal yëpp doo fa dégg fu ñuy wax wax dissolution de parti buy impacte candidature doo fa gis fenn ci législation Sénégal fu ñuy wax candidature. wax ne dissolution parti mën na ko impacter mën na ko impacter doo gis fenn fu ñuy wax dissolution de parti day impacte la personnalité juridique des militants. amul fenn amul fenn. kon kay léegi boo génnee ci conséquence dissolution mënul entacher léegi à partir à partir de demain niveau à partir de demain jusqu'au 20 li conseil constitutionnel di étudier mooy le fond de ce que je viens de te dire sauf sauf le parrainage parce que boobu exécute xool nañ fond bi ba pare yeneen yi fond bi la ñuy xool fond bi mooy li ñuy waxtaanee nii kon amul fan nga mën a jaar Diomaye Faye waaw moom mooy dissolution de parti bi nga ni amul fenn suñ ko jaar léegi mu am beneen oui mooy Diomaye mu en prison oui euh, oui qu'est-ce que ça veut dire waaw ma boobu it boobu deful dara ci candidature bi malgré qu'il est en prison être en prison et être innocent en même temps n'avoir aucune condamnation xañu la say droit Diomaye est présumé innocent yow ak Diomaye yéen a yem képp dañ koo jiiñ képp jiiñ kese il n'a même pas encore été entendu sur le fond du dossier qui l'a amené en prison xam nga lan moo yóbbu prison Diomaye mooy bindam ba mm, xam nga la xewoon ba mooy ci mbirum Mame Mbaye Niang bi bi ñu condamné Ousmane Sonko dem tegi euh, cour d'appel ba ci condition boo xamante ne tout le monde a ri sous loolu day yóbbu Diomaye euh, prison mu bind. bindam bu rëy ma. de waaw mais quand même. quand même monsieur président Macky Sall. Euh, ma ne calam ca wax. Diomaye opinion la joxe ci Facebook. mu ngi prison. am na ñoo c'est sur les faits moo tax may sori di wax. oui c'est une opinion sur Facebook. malgré que nii ñu dóor ay phobie ñu ngi dox seen soxla. opinion sur Facebook war a nekk prison. une grande grosse farce aussi mais bon. te yàggoon nga wax ni fii mun ñu fee ubbi dossier am. Hmm. déglu ko. jugé ko non non ñoom xam nañ mënuñ nekk. xam nañ ne ah, mënuñ nekk Diomaye donc impérativement le 25 février Diomaye dans la course maintenant. ça hmm. dépend rek carte bi. Ousmane Sonko moom mooy. justement euh, léegi bu ñu dugalee recours Ousmane Sonko. waaw mais mandataire am nekk avocat mu jàpp ni ba tey. Hmm. mu ngi ci course bi parce que ba tey il est éligible. exactement recours boobu day bokk. ci les dossiers de fond yu conseil constitutionnel di càmbaraale en même temps. exactement bien bien sûr da ciy bokkaale Sonko Sonko dañ koy dañ koy xool. dañ koy xool dañ koy xool. mooy li ñu doon xaar kon finalement ci lañ koy amee. les questions de fond motivation yi war a génne. te foog ma ne candidature rejet moom amul motivation. waaw ah. déedéet rejet moom xanaa leen rek ngay tegaat. gisuñu attestation. attestation te boo gisul attestation dans le fond. di nga gis lan moo compromettre lan moo empêcher. Ouais. Euh, attestation boobu ne tu le verras. donc ñuy fàttali jurisprudence Insa Sankaré. lu leer la c'est la jurisprudence euh, du conseil constitutionnel. Mm. ça ne vient de de de de planète Mars ça droit bii ñuy wax fii di ko expliquer fii di ko appliquer fii ci réew mii la. dañ ko koy xajal Ousmane Sonko noo ko koy layale moom moom xanaa moom euh, valider ngay def. Hmm. après nga mën a andi les motivations de cette validation mais ay valider foo jëlee motif bi foo jëlee motivation bi conseil constitutionnel lu mu wax daf ko war a andi lay fu mu ko layalee lu mu wax daf ko war a andi motivation. nañ seetaan bi oui mais finalement kon li ñuy waxal lépp conseil constitutionnel mun ñoo jàpp lépp li maanaam que ni comme tey. jàllale na parrainage yu Bassirou Diomaye Faye. correct correct ils sont clean. oui waaw ah, déedéet man du ma ko jàppale noonu de. non waxuma ils sont clean mais je veux dire ñi nga xam te dañuy def ay critiques jëm ci moom ci procédure mais mais c'est-à-dire da ngay xool critique boobu. est-ce que yegg nañ ci am recul. critique bi ñuy def pour xool réellement ce qui se passe. même ba ci Amsatou ah, Sow Sidibé. critique bi ñuy def également tey bi mu demee it. critique bi critique critique bi kii critiqué da ngay xool est-ce que effectivement argument yi mu critiqué c'est fondé ou pas. oui. donc lii nga xamante ne moom euh, euh, ñu ngi koy wax Ousmane Sonko di euh, essayer de compromettre sa candidature kenn critiquer la décision du conseil mm. avec des arguments xoolal ndax arguments yooyu am na wala amut mais ce n'est pas que ñuy valider nga joomaay rek que voilà lépp nice lépp gongo ah déet am na am na am na décision yoo xamante ne doo au mur ci dara signature yaa ngi nii Ziguinchor nga mokkaloon ñu andil la euh, Colorado foo jëm mokkaloo leçon boobu. et que noonu la demoon sànq. ah bi vérifié. <laughs> waaw maanaam yowoon bitim réew yoo leen doon xool. non mais parrainage yu bitim réew. parrainage yu bari. non gars yi ils sont. gars yi stock bu kii la ñu indi. méthodique très méthodique très non mënuñ mu c'est-à-dire lu logique lu tegu ci yoon munoo cee woon invalider Diomaye. ba tey jii nii lu logique lu tegu ci yoon xam nga Ousmane Sonko ñu ngi débattre sur la recevabilité de sa candidature juridiquement ñoom dem nañ ba mënatuñ koo layal juridiquement ñu mujj ko accuser attestation bu Diomaye daa amul débat looy débat lan ngay débat. dans non looy looy débat mais Pa Moussa 21 candidats quand même su dee nii càmbar nañ leen au fond it ñoom ñëpp clean. non 21 moo moo moo tax ma ne la Rido Maïga. bëriwut bëri na kay Rido Maïga. plus bi ñëw na Rido Mayiga <laughs> Rido Mayiga mais am na lu tax quoi. lu tax non mais parce que docteur Soham Wardini. Euh, ñun waa Kaolack lañ kon sama mbokk la Soham nag <laughs> Soham mooy mag ji Rose. Rose <laughs> effectivement elles sont sœurs mais euh, euh, Rose Wardini. mais li mu déposé au début li mu validé ci premier tour bi. moo ëpp déedéet. lim mu validé deuxième bi moo ëpp. li mu validé moo ëpp waa lim lim lim lim. en quel de jours. quand même am na am na ñu jàppale. oui am na ñu am na ñoo xamante ne dañ leen yàkkal ci yàkkal boobu bon je ne je ne stigmatise Rose mais ci biir eh, ñi nga wax nii. ñi nga xam te ne jot nañu ci ëpp nañ leen yàkkal. oui parce que déggoon naa la barki dem nga wax ni Pape Djibril mënu cee génn génn na ci tey. déet dama ne mënu génn. dama ne man en tant que ku ko soutenir pour mu dugg assemblée. taxawaayam ci assemblée décevoir na ma. waaw ah, loolu wax nga ko. que ni ni ma ko xamee woon ci ligne bi nekkoon jàpp naa ne wàcc na ko. loolu wax nga mais nag. Kanta dina am ak du am nekk woon ci loolu. waaw euh, bett daal. voilà mais mais mais mais mais am na ñu ñu yàkkal am na ñu ñu yàkkal. jox loolu moo leen may ci diggante bi. ñu am na ñoo xam ne dañ leen yàkkal. ku leen yàkkal ak fan la bàyyee ko. non dañ leen a yàkkal non mais ñu yàkkalaate tamit euh, bon euh, amoo 4 millions ça c'est sûr mais am nga quand <laughs> am nga mais ah d'accord kon yàkkal bi foofu lay bàyyi